Parlez-nous de la Saint-Valentin. Euh, pour la Saint-Valentin, je dirais que c'est la fête des amoureux. Eh, oui, entre couple kay li nga may laaj ni xaw ma ko. xamoo lan mooy Saint-Valentin. wallaay loolu xaw ma ko. mooy maanaam feetu ñu bëggante yi. waaw ah feetu ñu bëggante yi loolu kay moom xaw ma ci dara parce que fii kay moom mosuma ci def dara fi Saint-Valentin bi nan nga ko dundee. ba pour le moment dundaguma ko mais bon. <laughs> nit ñaa ngi préparé daal gis naa si yoon bi ñu bëri ñu def rouge noir et puis voilà quoi. ah ren sentir suma gu sentir gu ma sama bopp quoi. Mhm. daanaa ñëw classe def rouge noir mais instant yi dama ne xaw naa ko dépassé daal parce que Saint-Valentin chaque jour la war a nekk war a jël benn jour spécial ne lii mooy Valentin lii mooy Saint-Valentin. nga nan nga dundee Saint-Valentin bi tey. ah Saint-Valentin bi ah. jouru kii la mbëggeel la parce que nit ku nekkee yaa ngi ñaan yàlla ànd ak sa jëkkër walla nga ànd ak sa copain bésu tey jii daal bésu amour la waaw ku sañoon nag tey jii wax dëgg fa neex yàlla du yomb tey te ba pare mu nekk sama bésu anniversaire kon man tam dama ciy kontaan di ko féete. asalaamaaleykum sëñ bi mun nga ñuy wax loo xalaat tey Saint-Valentin bi noo ko dundee. waaw ah, Saint-Valentin moom nu ko dundee du dara lu dul gars yi konte ñoom dañ ne feetu bëggante la xam comme ñoom ñuy bëggante tamit mën nañ ko dund quoi mais sama genre yi xam nga. ñun bëggante wuñu quoi. amoo Valentine quoi. non instant bi amoo Valentine mais dinaa ko am parce que nit laa comme nit ñi instant yi si job bi laa concentré wu quoi peut-être un jour viendra xam nga dinaa concentré wu si loolu noonu quoi. mais instant bi moom taluma ko quoi wax dëgg yàlla quoi. en ce moment euh, je vis pas la Saint-Valentin parce que je suis seule. Ah, man ni ma koy dundee ah xanaa dara du yomb tey rek ci guddi gi. Ah. waaw waaw def ba mu baax rek. bon peut-être ce soir ma dem lu tax sentiroo ko. dama jàpp loolu yëfu xale la rek. mais bon soo demee ba nekk. ah da xam ne lii nii amul benn sens. C'est vrai que l'amour, sa c'est tous les jours, mais aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour nous magnifier. C'est tout. Quelle couleur vous avez après Quelle couleur Ah, rouge noir, là, rouge noir da laa fas yéene rek maye ko bésu tey jii. cadeau bi nag lan lay doon. ah cadeau bi man may seet sama choisir bopp rek. Mhm. da ngay def ba mu baax. waaw damay def ba mu baax def ba mu tëb dara du yomb.